abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay yu wér te ci réew mi ak ci bitim réew. Sénégal de technologie. absolument bu mel ni TER. Hmm. boo demee BRT noonu. aéroport AIBD ña ñoo fa nekk Turquie. Hmm. pourtant mënoon nañ former de sénégalais. ba léegi dañ nga fay fekk ay turc. Hmm. mooy da ngay gis ni maam li ñu soxla mooy benn patriotisme national maanaam ci secteur économique bi. benn. rawatina tam suñuy dirigeant jiital intérêt réew mi. xolal buñ fi buñ jëloon dakaar ba Casamance daf koy chantier dakaar ba Casamance lépp nekk ay chantier. Mhm. ah te chantier joxoo ko ay doomi réew mi xaalis bi desul ci réew mi. bu fi ay étranger ñëwee defoo transfert de technologie. Mhm. structure de santé yaa ngi gën a leen yenn structure au détriment de Euh, ñoom docteur ak ñooñu. Mhm. dëkk bi du dox sénégalais yi duñ ci gis seen boobu dañuy dëkk ci ab dëkk boo xam ni doon fi étranger daf ko fiy gën. Mhm. fexe tamit attribution wu marché yi ñi nga xam ne mooy euh, géant national yi. Mhm. mën di compétir ak entreprise étrangères yi. parce que tey boo indee benn par exemple benn construction benn tali bu mag. wala beneen structure bu munti doon hmm. def appel d'offre entreprise chinois bi ñëw di compétir dafa am soutien wu lu mu état chinois hmm. yow nga bàyyi yow say entreprise ne leen dem leen joyante moo tax gars yi gañeetuñu ay marché hmm. donc li réew mi soxla mooy beneen cent neuf boo xam ni c'est des leaders décomplexés mais patriotes mais mais ci leader yooyu. waaw parce que ñu ngi jëm ci élection. 2024. Mhm. Mhm. Hmm? Euh, ci leader yooyu ban ban leader nga ci yaakaar. non xam nga man. parce que aussi xam nga tax ma la poser la question boobu. Mhm. parce que élection la ñu jëm mais am na ñu war a bokk mais am na ñu ne du ñu bokk. waaw xam nga bokk ak war a bokk boobu moom. amul lu ko gën a contradictoire parce que maas xolal dañu ne dafa am ñaari leader yu ñu bëgg a boolewaat mooy Khalifa Sall ak Karim Wade. am kenn koo xam ne Ousmane Sonko lu tudd nii bokk na suba bu élection amoon day compétir. Mhm. mais Khalifa ak Karim suba duñ compétir xam nga bu élection amoon. mais nee nañ danañ waxtaan ba dugal Khalifa ak Karim. Ah, waaye ki bokk nii suba bu élection amoon day bokk. ah bon soo koy kanda nii nii suba bu élection day bokk. parce que dossier Mame Mbaye Niang c'est un appel. Mhm. nii Ousmane Sonko koy candidat suba buñ ne woon dañuy voté. suba boo duggee ci urne fekk fa bulletin mais nee nañ kooku moom danañ aat ah li mu wax doo ko tegg honorable quand amu ci benn problème boo xam ne c'est définitif mm-hmm. loolu droit la du samay wax mm-hmm. nee nañ danañ ko condamné ba du bokk déglul la waaye ñaar ñi nga xam ne bokkuñ nee nañ danañ àtte juge utiliser loi ba dugalaat leen mm-hmm. waaw léegi déglu la parce que loolu daa ngi dégg Souleymane déglu de mu am lu ci wax waaw xam nga li mu wax noonu moom la Sénégalais yëpp d'accord mooy nan la xel di yanoo maanaa nga créer projet de ne si wala modification code L nangam nangam. Hmm. dugal ñaar ñu génne ba pare génne koo xam ne mi ngi ci biir te yow nga wax ne euh, la loi elle est rendue au nom du peuple. Hmm. te tey peuple bi tey boo tegoon référendum. Hmm. ne le président benn nit la am droit réintégré ci ñetti ñetti ñett yëpp aawut lañ buñ ko voté Ousmane suñ koy dugg. ok leer na la nit. bokkaat boobu bu doon référendum te benn place Ousmane Sonko koy gañe ndax li ëpp ci population boobu s'identifier à lui waaw te ba pare yow nga ne yow la loi que tu as elle est rendue au nom du peuple te peuple boobu exiger candidature Ousmane loolu contradictoire la ok ok donc xam nga loolu am na mhm. léegi nag diw mooy profil bi wala diw du profil loolu man bu sama rôle les sénégalais sont conscients jamono yi ñuy wax naan euh, sénégalais yi hmm. folli lañ mun munuñ fal du génération bii de hmm. génération bi c'est des sénégalais bien éveillés hmm. am sax beaucoup d'avance sur la classe politique et loolu moo waral homme politique yu bëri gisoo léegi bu ñu communiquer mujj gi comédie lay nekk parce ñi nga xam ne mooy population bi dañ leen a romb lu bëri bëri bëri bëri bëri ndaw yi xam nañ ni seen avenir dafa nekk en jeu xam nañ ni Sénégal li fi feeñ ci ressource dafa bëri xam nañ ni Sénégal ñaari ñaari virage a nekk ci kanamam après deux mille vingt quatre soit le Sénégal dafay nekk benn Dubaï wala benn Qatar mooy pays producteur de gaz et de pétrole extrêmement riche mais askan bi gis ci seen bopp wala mu nekk benn benn Gabon wala benn Nigéria. di produire pétrole di importer essence. Mhm. essence di ko gën a cher que Sénégal te ngay première puissance pétrolière ci réew mhm. mooy amoo sax raffinerie. Mhm. bu nu mu tudd. yow euh, bu exploité pétrole bi. Mhm. Sénégalais yi enjeu yooyu moo crucial moo nekk ci kanamu ndaw yi ngay gis ci tali bi. Mhm. moo nekk ci kanamu ndaw yi ngay gis ñuy jaay bracelet. Mhm. wala ñu dem accompagner président mi ci programme am. moo nekk ci kanamu ndaw yi ñu naan dañ leen a manipuler alors kenn manipuler wu leen. dañoo éveillé yeewu conscient xam seen. avenir avenir la ñuy xeex. non seen avenir moo nekk enjeu. mooy mën na ne. yes we can. abonné leen si suñu chaîne YouTube ngir jot saa yu wér te ci réew ci bitim réew.